olof nee na njàng njàngaan boo mokkalee ber sa daara ginnaaw njàngam mu wóor gëstoom bu xóot xam-xamam bu wér ci la seex si la taalib def yitteem yépp ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ci wesaare xam-xam am ci tawféex tax muy sant yàlla ci di leen yëgal na téereem bu njëkk bu mu bind ci wàllu tasawuf génn na muy mu nawwirul janaan wa jaalibul anaami lil jinaan mu ànd ak masaalikul muriid ilal ilaahi tooridil marid di ñaari téere yoo xam ne foo takk seeni njariñ weesu na ko jullit bu nekk war na koo am rawatina bépp murit kon yéen jàngkat yi gëstukat yi waram xam-xam yi wala boo képp ko yittewoo téere bi mën nga koo fekk ca maktabatu Touba Daaru Saam basin sëriñ Murtada ca Baay sëriñ Lay wala maktabatu Touba Firdawsi ca Baay Seex Faal kër sëriñ Alxaaji Baara wala palaasu sëriñ mbàkke fa jàkkaarlook jumaay tuuba wala maktabatu sëriñ saalixu mbàkke ci yoonu ñaari étage jàkkaarloog kër sëñ ahmadul maxtaar man ngeen ko amee it ndakaaru ca parcelle bi ca sëriñ seex lay ak fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi wala bitim réew te bëgg ci téere bi woote leen ci numéro yi 78 104 95 77 wala 76 533 50 24 wala 70 948 18 79 منور الجنان وجالب الأنام jinan ak Masaalikul Murid ilal tori dil marid di ñaari téere yu làmboo ay njariñ ak ngëneel akum njàngaleek mbindi tasawuf yu yaatu ci wayin wu jub mool bu taaru te garanti ñu xéewale leen ko lool ñaar téeméer rek la téere di jar képp ku am Munawwirul Janaani tabax nga say njënde ca biir jinaani fexel ba yeur masaalikul mudidi ndax le nga yegg moy pexe maridi xam-xam bu làq ay ngeenel ak injariñ mos xam ku mos ko xam ne yàlla mo xereñ ci souf la sàkke findi fi la sàkke fer moy xar xolub jaama bu sop ko def ca leer mu nawirul janan tere buy tek tele yono aljanna lépp mbet la waltu basir sawi ta'allum turan wa bi yaazim jamiihum min luxuun